alhamdulilah ñoo leen seen revue presse lambu talaatay tey jii la ci gën a fës suñu lambu mu ngay desiwaat ci kasewu ñaari mbër yi diggante Siteu ak li di la de Guiers numéro 2 ku ca nekk lañ la fay Siteu suñu lambu mu ñu xamal ne lu toll ci soixante-douze million lañ ko fay ki di Lac de Guiers 2 lu toll ci soixante millions lañ ko fayoon ci kase kii nga xam si ni moo di Quench bu Lansar Quench bu Bargny suñu lambu mu ñu xamal ne digganteem ak Franc combat boobee ci moom la tagee ndax kase ba mu laaj tol na ci vingt cinq millions ngir ñu mën ko koo fay mu jàkkaarloog France ñu laa mu ñu xamal ne waaye digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 da koo wàññee wàññi quinze millions rek la ca laaj ngir mën a jàkkaarloog Lac de Guiers numéro ki kii nga xam si ni moo di Zalba mu ngay analyser combat bi nga xam ne derby wa Ndakaaru la diggante Zarko ak Diène Kairé ñu ñëw ci li xewoon adresse Senghor sixième journée kii di Ablaye Ngom bu jaxaaw moo surprendre bett ki nga xam si ni moo di ëbbali wër ko ndomba daan ko jël bu ki nga xam si ni moo di Ablaye Ngom suñu làmb mu ngay ñëw ci laay Pythagore ak Laye Gothé suñu lam mu ñu xam ne Laye Gothé Laye Pythagore ko fekk foofee ci Thiès daal di koy dominer am ndam ci kawam suñu lam mu ñu xamale combat bu am ñaari chute beneen combat bu ñu war a def deuxième face à face mooy diggante Modou Lo ak Boy ñaar ñi war a laale le premier janvier 2024 ni ki samedi bi ñu jëm ci lañ war a jàkkaarloo ku ca nekk wax ana nan ngay waajeek sa morom ginnaaw loole ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha allah ay mbir ne waaj jot na ànd ak Mbousnakh production jawali jubali ngunjaan le 24 décembre ak mise bu am solo 1 million de francs CFA lañ fa teg première édition sargal Adja Njaxat Gueye première adjointe au maire de Ngoundiane moom lañ fay sargal ci 1 yañ fa teg ak Mbousnakh production ah ci animation bu ñu ànd fa ak Adama Ndour mooy way waye ci wàllum tëgg ma ki nga xam se moo di Moussa Diop mooy tëgg tëgg ma kon ambiance du manqué tribune 2000 francs amateur 3000 ñu jubali Ngoundiane le 24 décembre